mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di nafaraat ak bokk di fàttalikuwaat tey jii ñu am bind boo xam ne jëlaat nañ ko ci taxarin ci tabaxin wi nga xam ne moom la suñ moom la suñ borom tabaxee lislaam ak société bi lislaam bi loola nag tey jii li nga xam ne bind bi nga xam ne moom lañ ci jël moo di atte atte ki nga xam ne moo yor atte ci lislaam ci ci ci société jullit ñi mooy yàlla képp ak yonantam sanal sallallahu alayhi wa sallam naa nit ñi ci des ñëpp ñoo yem ci at ci ci atte bi ñoo te atte bi ndax atte bi kenn amul amul ca droit wala mu def te lenn lu dul suñ borom képp wala loolu loolu moo tax nag bi nga xamee ne suñ borom képp moo am atte moo am droit ci atte bi moo moo ca am sañ-sañ loolu tax na nag kenn ku mën a doon kuñ atteloo ku ne suñ boroom rek nga war a mën a xool ca atte bi ngay atte suñ borom rek nga war a gis ca at ca la ngay doxal loolu ne moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne am na soxna soo xam ne am daraja la bokk ci giir gu mag am am loo xam ne da koo randaloon ñëw ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko baalu ngir bañ mu dagg loxoom mu ni leen xamu leen ne ndax day bu fekkoon ne Fatima mii nga xam ne sama doom la dafa sàcc na nga damay dagg loxoom comme ni may dagg loxoom ñu neen loolu nag moo ñuy won ne ci lislaam kii àtte amul lenn lu muy seet lu dul suñ borom amul lenn lu muy séddaale lu dul suñ borom képp loolu nag moo tax ba ndax loolu nag li ko def mooy ki nga xam ne mooy nit ki ci ki nit kenn nit ki nga xam ne moo fondé société ci lislaam kenn amul bët buñ koy xool bu dul bëtub ragal yàlla rek ci lañ koy gis ci lañ jox ci lañ koy joxe daraja ci lañ koy ñàkkale daraja loolu nag moo tax loolu nag suñ borom moo nu ko wax ndax dafa wax ne ki gën a tedd ci yéen ci yéen ñi nga xam ne yéen yéen a yéen a yéen a amal société d'islam ki ci gën a tedd ci yéen mooy ki nga xam ne moom moomu gën a ragal képp loolu nag moo tax ba ki nga xam ne mooy atte ci lislaam du gis boppam ne mukk moom mi ngi ci daraja joo xam ne gën naa kawe ñi muy atte day gis boppam bu xam ne moom ñoom ñëpp ñoom rek ñoom ñooyam képp loolu moo tax yonente bi loolu moo tax Seydina Aboubacar sallallahu radiyallahu anhu bi nga xamee ne suñ jiital nañ ko ngir mu nekk xalifatu muslimin li nga defoon na déclaration boo xam ne dafa waxoon ne man day yàlla dogal na jox ngeen ma nguur gi waaye nag gënuma leen ci lenn gënuma leen ci lenn loolu nag moo tax ba bu fekkee ne maa ngi jaar ci yoon kon na ngeen ma dimbale bu fekkee ne damaa damaa tegg yoon wi nag na ngeen ma jubal ma jaar ci yoon wi nga xam ne mu laa war a jaar kon nag ki nga xam ne day mooy att ci lislaam waxtu bu ne day gis yoo xam ne da koy fàttali tëkku yi nga xam ne suñu borom tëkku na ki nga xam ne mooy att ci lislaam te jaar ni nga xam ne wërtu wuru koo jaar di fàttaliku itam xam ne ki nga xam ne moo koy tëkk tëkku xam na ne du ko rëcc mukk te dana ko téye téye bu wér ëllëg kooka muy suñ borom atta yi ki nga xam ne day atta ci lislaam suñ borom dafa da ko woone ne yow mi nga xam ne yaay atta ci lislaam day wala yaay taxawee atta ci lislaam waxtu woo xamee ne jaar nga nu bokkut ak ñi nga ñi mën a tëralal na nga xam ne benn am na ay melokaan yoo xam ne moom benn nga nekk ku tooñ ab tooñkat wala nga nekk koo xam ne da ngaa weddi li nga xam ne moom laa la moom laa la wala da doon koo xam ne da ngaa jéggi li nga xam ne moom laa la tëralal te loolu kon nag melokaan yooyu nga xam ne moom la suñu borom tëral tëral ci kanam ki nga xam ne mooy atte ci lislaam nga xam ne benn dana ko atte bu fekkee ne attewut ci ni mu war a attee da koy da day jàpp da koy jàpp ne ab tooñkat la wala mu jàppe ko ne ab yëfër la wala mu jàppe ko koo xam ne génn na li nga xam ne moom la ko kon nag kookee nga xam ne mooy attaque lislaam yaakaar naa jullit bu ne da daw suñu borom mu wax la ne ab tooñkat nga jullit bu ne da nga daw suñu borom mu wax ne la ab yëfër kenn jullit bu ne da nga daw suñu borom mu wax la yow mii ko da génn li nga xam ne moom laa rëddal ba tax na kon kii attaque lislaam day xam ne melokaan yi bëggu ci moom benn bëgguñ ñu bëgguñ ñu askane ko askanale ko benn ci melokaan yi kon te xam na ne itam du yëmut rek suñ borom yëmut ci rek wax teg teg melokaan yi ci képp ki nga xam ne dafay doxee nu bokkut ak ni nga xam ne ni la tërale waaye dafa daa doon nag koo xam ne itam dafa taxaw di ko seet ba xam ni nga xam ne moom la ko atteloo ndax mi ngi ciy dox ni mu ci war a doxe wala doxu ci ni ni mu ci war a doxe te moom kat amul dara loo xam ne dana ko dana ko lënt wala amul dara loo xam ne dana ko raw ci li nga xam ne amul dara loo xam ne itam du ko xam ci li ki kii atte nii nga xam ne ni lay atte ndax mi ngi jaar fi mu war a jaar fi mu war a jaar wala ndax ñàkk naa jaar fi nga xam ne moom fi la war a jaar loolu te moom suñu borom moomee kat du tooñ kenn bëggut kenn itam kuñ tooñ kon bu fekkee ne ne ki nga xam ne mooy atte ci lislaam day teg ci kanam melokaan yi nga xam ne moom la suñu borom melal ki nga xam ne dafay atte te jaarut fi mu war a jaar teg ci kanamam itam xam ne moom kat suñ borom mu ngi koy xool ba xam nan lay doxee ak nan lay taxawee kon dana kooku koo xam kooku mel noonu yaakaar naa du jéggi mukk yoon wi nga xam ne moom la ko suñu borom jéggal tegal tegal du du jaar du jaar nenn itam ci nurud ñi nga xam ne leen suñu borom bëgg mu jaar ci tey day fàttaliku waxtu wu nekk teg day teg ci kanamam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne kat yéen ñëpp di ay sàmm ngéen te sàmm bu nekk bu ëllëgee danañ koo laaj la mu doon sànn la doon sàmm lañ la ca doxe loolu itam moo nuy wan ne suñ borom moo ne moom mooy ki nga xam ne moom rek moo mën a tër aw tërin te tërin woowee jaar ci yoon kenn du ko mën a jéggi kenn du doxee neneen lu bokkut ak ni nga xam ni la ko bëggee ndax li ñu koy won mooy bu fekk fekkoon ne day àdduna si niñ fi nekkee am na keneen ku ci am sañ-sañ wala ku ci am man-man ku bokkut suñu borom kon yaakaar naa ne léegi te léeg-léeg sañ-sañ yi wala wala man-man yi léeg-léeg mu wuute wala léeg-léeg kenn kii bëgg lii kii bañ lee wala kii jëm fii kee jëm fële te bu boobaa kon adduna si ni mu war a doxee dund doxee te gis nañ ne mu ngi dox ni mu war a doxee loolu kon ñu xam ne kon atte ci lislaam suñu borom rek moo ko moom kot kattan yitam ci lislaam suñu borom képp moo ko moom te moom moomee mi nga xam ne mi moo moom sañ-sañ moo moon kàttan moo mën a moo mën a doxal moom day kenn amul kuy taxaw ci kanam di ko laaj ne ko lii lu tax nga defe ko nii lu tax nga bàyyi lii lu tax doxewoo nii waaye moom am na sañ-sañu laaj ñëpp kon loolu moo ni won ne lislaam day tërëliinu àttina àttinam ci ci ci doomu aadama yi doon na tërëliin woo xam ne day tax ba ki nga xam ne mooy àtte waxtu bu nekk fitam du dal ndax day xam ne bis bu jaaree nu mu mënut a jaar wala mu doxee nu mu mënut a doxe am na koo xam ne mi ngi koy mu ngi jàkkaarloog moom di xam li muy dox lépp di xam li nekk ci xolam di xam li nga xam ne moom la bëgg di xam li nga xam ne moom lay moo moom lay moom lay yaakaar ca lam lu mu bëgg a def kon nag faw bu day doon koo xam ne ni nga xam ne la suñu borom bëgg rek ni lay war a doxee loolu nag yaakaar naa mooy li nga xam ne moo ñàkk ci doxinu àdduna si ndax kenn ku nekk kuñ tëral ngay àttekat ku ne am na looy sédd am na looy bàyyi xel am na loo xam ne itam dang moom nga bëgg loola dana loolu dana ba taat dana dox sa digganteeg nanga war a attee ak nanga war a doxee nga doxalee na noona nga doxale noona kon nag yàlla ñu suñu borom mi nga xam ne mooy borom ndimbal defal nu ay xol yoo xam ne danañ dégg li nga xam ne moom lañ leen di wax defal nu ay bët yoo xam ne itam buñ leen wanee dara danañ ko gis doon defal nu ay nopp yoo xam ne itam buñ leen waxalee danañ dégg lañ leen di waxal yàlla nañu suñu borom defal loolu suñu borom mën na ko jàpp ne ko yàlla nañu ko defal ñu ñaan itam ginnaaw loolu suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ yàlla nañu dimbulee dimbulee taxawul noonu Seex Muhammad Muntaxa bi nga xam ne moo taxaw taxawaayu Sëñ Tuubaa ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci doomu aadama yi te yéene koo def ci lislaam mu def ko defi noo kawe njottam te ànd ànd kook ñun te daj ci suñ borom ak ngërëmul Sëñ Tuubaa képp koo xam ne itam lislaam mooy sa tool yàlla na suñ borom taxawu yàlla na suñ borom jàppale yàlla na borom dëgëral ba li nga xam ne moom nga yéene ci lislaam nga def ko ci definu kawe sa njott te ànd koo ña nga ko war a àndal te daje cee ngërëmul suñu borom loolu suñu borom mën na ko jàpp nu yàlla nañ ko defal aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina allahuma la tadaa lana damban illa xafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa xadayta wala maytan illa rahimta wala maridan illa sufayta wala xaajatan hiya lana salahun wala karidan illa qadaytaha ya arhamar rahimin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam